bi di ñu ngi koy sosoon atum 2007 waaye biñ koy sos nag euh, daaru Tansil muy daara si Muntaxa ndax man mii di wax yow foofu ab jàngalekat laa fa booba eh, leen taxoon a jóg mooy wuutu sëriñ bi ci daara ja fas yéene ko yoral dundub donga ya ak yeneen ak yeneen bi yàlla dogalee sëriñ bi toogee xilaafa sëriñ Basiiru nag yanu poroxaan bi tabbi joom mu dollil leen ko ci waaye li leen taxoon a jóg moom du lii waaw. dundu donga yi bu nu waxee ni mu yéen a ko yor kon yaakaar naa ne dina doon bilan financé bu yaatu lan kan moon ne seen ginnaaw. ah waaw moom day amul kenn ku nekk seen ginnaaw lu ne rek eh, kenn ku nekk am na loo warlu daara ji six mois yu ne eh, xam naa ne daal six mois yu ne daayira bi dana débile quatre million cinq cent muy dundu daara ji bu six mois jotee danañ ko andiwaat. muy at mi nga xam ko at mi da rek. Ah, ah, ah, douze millions xam nga treize millions xam naa loolu lay doon waaw loolu daal moom 2007 ba léegi. ñaar ndax ay góor a ngi waa jigéen. waaw ay waaw ay jigéen mënu cee ñàkk ndax nekkul dayri boo xam ne da ngaa woote ku ñëw bindu ku ni ku jaarul woon ci daara ji sëriñ bi yar la bokkoo ci dayri boobu. waaye nag soxna suñu soxna yi judduwaat ci biir ñoom ñoom dañ cee bokk ndax ci biir njaboot gi dañ kon li ci nekk ci ay jigéen koo ci gis ku ne rek am na borom kër ci biir ndax borom këram moo ci boole ku ñëw rek bindu dem. bànqaas bi ndax Touba dong la yam. déedéet euh, yaatu na ndax donga yi ñoom ñëpp bi ñu ñëw ñi dañoo dëkkee Mbour ñi dëkkee Dakar ñi dëkkee Thiès ñi dëkkee Ross Béthio ñu res naan ñenn ñu nekk nag fi leen gën a jege section bi leen gën a jege dañ ko faa taxawal ndax Ndakaar ku ne xam na ne barabu liggéeyukaay la ñëpp nekk ñoom it dañ fay taxawal section boo xam am na ku leen fa jiite ñu nekk Touba noonu ñu nekk Mbour noonu ñu nekk euh, Ross Béthio noonu ñu nekk ci diaspora bi noonu euh, ñu nekk Thiès noonu waaye sexo yi dal xamagul naa ci yo xamne seen ñooñ ak ñepp ne ñi ci biir mbolo mi ñoo nek fi teen bi nek ci barab ba nek ci kër na Jaara gi ci biir appartement yi non dal lañu demé ko non yow jërëjëf ñi ngi lay sant di la gëram ñi ngi sant baax jërë nga jëf. wa di sant di soñ rek di ñaan suñu borom defal ñu jàmm tawfeex rek luñ ñu fi def rek suñu borom defal ñu daare ni wa waaw. di ko jaajeufal baax baax moom jëwrin ci tan gëram dal da koy ñeel